كي جنا بونو سنتي الله نوغي جولي شي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شي اجوما جيلي مو يور يور يونت يالله محمد سين خريط الحاج نجاغا سيك دي شي عندك ين دي نيان يالله دولي شي ريو مي جام كوم ني نين كو خامي إيه كيب كوي نيان كو نيك بوي بو ديكو شي بولي يالله سون بروم دي نو دولي الجام دي نو دولي السطرة دي نو دولي الخيول واي دي ويرل سوني تير رواتنا شي مباسمي يالله جيلي كو في تي باركي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام fan yi xaw ma mbas mi la xawma waaye daal wóoluwuma ci yàlla waaw taw ñiy dem wóoluwuma ci yàlla xam naa nag mbas moom euh, cause lay doon ci loo mën a xew dañ ni euh, yàlla bala laa wóolu ba jo xaw ma nu ñu euh, ay waay ca nattoo di kerkeraan mbir yi lu nekk day lëkkalook ay sew-sew maanaam day lëkkaloog ay ay mbir bu ko defee ñu jiñ ko loola fekk na lépp sunu borom la moo tax tuub dellu ci yàlla sunu borom danoo war saa su tuub dellu ci yàlla suñu borom danoo war saa su ne fu ne war a nanoo ni ñu koy waxee rek war a nanoo essayer vaccin bii nga xam ni mooy tuub dellu ci yàlla tuub dellu ci yàlla ensemble war nañoo essayer vaccin boobu ndax ginnaaw ma ngi yokku ma ngi yokku rek te xamul fu mu jëm ak ñun nan ñam boobu nan ko ñam nan ñam tuub dellu ci yàlla suñu borom xool ba xam ndax bu nu amee jàmm bu bu bu deñ bu fi demee rek nu am jàmm da koy jar nag waaw da koy a nuróog waaw ndekete woo loolu la yàllay seet waaw diis nu nu bàyyi diis waaw bàyyi xaw a woyefal suñu bopp tuub deli dellu ci yàlla suñu borom changé suñu jikko yi defalante bi yàqalante bi pexeelante bi kenn ku ne la nga ma fi ne nit ñi changé gun ba tey nag ba léegi gaa ñi kenn ku ne yaa ngi jéem a fël ka nga mën a fël waaw ka nga ji ka ne ca sa kanam maanaam ka ne ca kaw damay wax ni te affaire bi ni mu demee nii boo ko xoolee mu international ña ca kaw la yàlla noonu wàcc leen jël ñi ci suuf yóbbu leen ci kaw ñu bañ waaye yàlla far wàccee ñëpp ci suuf waaw léegi nag pour nu mën a demaat ca kaw faaw nu tuub rot deltu ci dellu ci yàlla sama borom ma ngi noonu loolu daal nan ko ñam nanu ñam vaccin wu tuub dellu ci yàlla sama borom ginnaaw bu nu defee nag atum yàlla ak nangam yoo xam noo ngi ci tam miin nanu ko miin nanu sorente miin nanu muuru suñu kanam miin nanu raxasu gi at atu yàlla loo koy def di nga ko waaye nag ginnaaw ma ngi dem rek te te te nanguwul dellu ginnaaw taw dañuy wax ne tawat bu bu nanguwul a dellu ginnaaw moom borom fa mu jëm kenn munu la ko wax kon nag nanu lu mu laaj nan ko jéem nan ko ñam mooy tuub dellu ci yàlla sama borom wutal ko bis boo xam ni général la bisu bis bisub dañ koy décréter fii ci Sénégal chemin et paix nga <laughs> noonu ko gaa yi waxee bu ko defee nu tuubal yàlla dellu ci moom ñu ñam ko ba xam man mas na maa fekke ci ay sabar sax mas na maa fekk ñu di ko tëgg di tuub di le maanaam di di baaw naan mas naa ko fekkee man waaw laataa ñuy weññi ko sóob nab taw waaw ginnaaw ci ci yooyu sax jaar nañ ci yàlla mu wuyu nañu ko jaar nag ci li yi seetlu ñu xool tabaarkalla di jaale réew mi di jaale réew mi ki ma ciy jiital fan yi li dem bari na muy muy muy muy Jamil Si moom Serigne Mansour Jamil si maa ngi tàmmeel euh, tur woowu maa ngi ko jëlee maa ngi ko tàmme ci sama xarit alxaaji Lamine Ngom bu Mbambilor alxaaji Lamine Ngom wata bi muy dawal maanaam lu mu am lu nekk néeg la ko wutalan ca këram kon noo ngi ko koy jaal bu baax a baax a baax alxaaji Lamine Ngom boo waxee mu ni Jamil si rek waaw ni mu daan lekk ni mu daan toppatoo doomu aadama ni mu daan toppatoo taalibe bii kon euh, yàlla na yàlla yeesal yéen ma ndéem di ci toftal sama xarit euh, xam naa Mourchid Iyane Thiam moom di ngeen dégg sax incha allah 14h30 15h ni mu nekkee woon ak maam Khalifa Niass dina ko nettali de moom la ñuy teg waxtaanam euh, ak waxtaan wu mu organisé woon bis boo xamee ni bisu Serigne Cheikh Serigne Serigne maam euh, Cheikh Ahmed Kabir mbay la. keneen ki ci des mooy sama xaritu bopp di maître Xaasim Touré di sama sëriñ euh, képp ku ko dégg maanaam képp ku dégg ma tudd ko rek da nga daan da nga ci daan am fierté. ay nit daanañ ma teral ngir tur yi ni ma koy tudde muy met Xaasim Touré di seexu Serigne tubaa ab seex la woon waa seex la woon seexam gi sax dafa jafe woon ndax ñaari yoon yëpp daf ko daf koo seex sëñ Abdou Karim Touré moo jur way way juróom bu jigéen te sëñ du Karim Touré sëñ tubaa nee na Jibril bu musaan di ñëw ci yoon ci yàlla Muhammad alayhi salaatu wasalaam euh, jëmmi daxayetul kël bi lay yor waaye euh, Jibril bu nu musaane dikkal jëmmi sëriñ du Karim Touré lay lay lay lay yor Eh, noonu la demee té kooku mo jur wéy juram wu jigen muy soxna bintou Touré ma ngi fi yàlla na yàlla gën ko fee yagal ba légui soxna bintou Touré momu 1927 euh, bi seigne Touba di euh, dem ci jamono joju bokk na ci dom yi mu wu tuddal len sen tuddal len bopam waaw loolu histoire la maître khassim Touré ci bopam momako netuli donon suma lool donon suma sëriñ don sama lepp benen bi ci dess moy El Cheikh Touré bayam kenn ku ne xam na ni yoonu mouride Euh, organisation bi li ci li ci ëpp ci loxoom la ko sëriñ Abdou Lahad jaar maanaam bokk na ci ñi nga xam ne moom sëñ Tuubaa da koo defoon benn clé buy réglé yoonu murit wi lu xew lu yàqu lu lu am problème maanaam yàlla roofal na ko fayda yi mooy ñëw ni la yow mii nekkoo ci lii ci lii nga war a ne moom baayam El Hadj Cheikh Touré yàlla na yàlla yeesal yërmande te yoroon na doomi sëñu saabu sëriñ ak doomi sëñ Laat waaw xam nga kooku cër la te euh, Cheikh Aliou Touré kenn ku ne xam na ko digganteem ak sëriñ Tuubaa moom daal ni mu jaxasoo seex la ci wet yëpp moom seex la woon maître Xaasim Touré waaye bu ma musaan a wax bi ma mujjee wax ak moom dafa dégg ma wax ko rek mu ne ma njëkk a déedéet déedéet déedéet baal day yàq day yàq day yàq li nu takk <laughs> waaw day yàq mbu mu mbi mu nu sol kon moom waaye fala na boppam nëbb na boppam ba dem maître Xaasim Touré te it amul leen te woon nag kilifa yi ci dëkk bi yëpp tabaarkalla boo gisee ma jël ci temps dama koo xamoon bu euh, korite tabaski musaana ñëw biroom ña fa nekk xam nañ li may wax ndooy maa ngi koy ziar sax nga xam ne keroog bi ñu amee ujaaj yi desoon ci fii ci aéroport bi te ma jiite woon leen man ak ñu jëlan ndóoy boobu bi nekk euh, foofu ci ci ci immeuble bi jiital ko ci sunu kanam maître Xaasim dafa ñu woo ba mu ñëw avocat yëpp daw mooy euh, le pèlerin euh, yi desoon ci 2013 yi demul woon Màkka mu ni dinaa fa yónnee expert maa koy fay danaa leen jël en charge maa koy topp ba ngeen ba ngeen jotaat seen xaalis te du ngeen ma fay dërëm loolu man maa ko seede maa ngi ndóoy moomu ndax ñoo ko yoroon tabaarakallahu yaasin def naa taalal kii tàng na trop euh, <laughs> da ciy baax bu ko defee euh, tàng gën sedd euh, yaasin 18 ans laay waxal noonu yal na yàlla yeesal yërmandeem daal moom daal lépp ku ko mën a ku ko bëgg a wax rek day day doy waar mm, suñu Abdou Aziz Mbaye ministre de la culture bi itam ñu ñaanal ko yàlla moom daal fan yii moom booy boo nu ñaan rek booy boo ñaan rek nee naa leen àddina bu dee demee nii wopp ak dee di bari sunu borom noonu na ngeen tuub ngeen dellu ci yàlla te bàyyi bon bàyyi caaxaan bàyyi leneen nañ ko bàyyi ndax yërmande bu bu bu musiba wàccee yërmande yàlla ji rek mooy mars waaw ñi yàlla yërëm ñoom la yàlla yërëm ci wet googu yàlla da koy seet wax na ko boppam nee na nag sama yërmande léeg-léeg ñu ne ah yàlla yër ñëpp la yër déedéet yàlla defewul noonu moom dañu inna rahmatallahi xaribun minal muhsinin sama ma ne ngi ko jooyal jëme ko ci way ñi ma gëm waaye caaxaan fo nekk ci la la neex bëgg affaire bi jeex ba nga delluwaat ca la nga ne nit amul xel yàlla ni mu defee nii waroon naa tax nit ñi bàyyi li ñu doon def lépp ci bon te xam ni yàlla bëggatul bon bon mayeetul xaalis caaxaan muy alal ji fi ne nii yaa ngi ko yor muy lakk ci sa loxo xamoo loo koy doyee mënatoo tukki mënatoo dem fenn mënatoo doxal dara fi mu ne yi ñu yor alal ak ñëpp yëpp a tiit parce que dara doxatul day d'abord seen moroomi milliardaires yi ñoo ngi dem. léegi lan moo lan la kon kon kon li gën a li gën a am solo dama dégg kenn mu ni nit du foyee bakkanam ma ni ko nit du foyee ngëmam boroomam. ma ne ko da ngaa juum nit du foyee bakkanam waroo nit du foyee ngëm ngëm yàllaam te ngëm yu bari yàqu na. Ah, bakkan mom bu sa bu waré rot day rot bu waré rot mom day rot kon foyee kook ñàkk koo foyee fi ne man ngay foyé sa bakkan té do dé waay ngëm lañuy foyé ngëm ngëm kenn wuur ko foyé boko foyé rek yak nga sa fi yak nga sa fële nit da wara gor gor ba saadatu daare ni moy xéwalu ñaari kër yi alal ji ni doon tax di kërëb kërëbeek yalla wan nañu ni mënu leena jariñ dara ndax fi ni ku fi am am milliard ak nangam nangam ya nga ni taalaa feebar bi jóge fi waxatoo waxu xaalis ba yaa ngi ni taalaa feebar bi jóge fi ba nga am jàmm yow ba delluwaat ca la nga neen kon li ëpp solo la sëñ Tuubaa noonu jàmm day nan ko ñaan ndax xaw ma lu ko gën fii xaw ma lu ko gën fee. bon ma ngi noonu tabaarkalla yaasin ay dénkaan tuuti la rek. a ngi jaamu laa bëgg ñu indi ko rek nu jaamu yàlla tuuti rek ak alaaji kabir seen buñ ko paree dem ci euh, Mor Kase moom itam ci ñaari wayam yooyu ñu bégale ko nit ñi ubbil leen téléphone bi ci 88 628 14 14 ñu ziyaarante ci ñaanal ñaanalante ci yàlla jàmm euh, nga xam ne tabaarakallah kenn ku ci nekk fa nga nekk rek nga nga nga ñaanal no bay Makhtar Diagne ca ko Euh, di di sëtub Cheikh Sadji Samba Diarra noo ngi koy nuyu di ko ziar di ziare njabootu Cheikh Sadji Samba Diarra ga fa nekk yëpp Baye Galas Mbaye moomu Serigne Massamba Mbaye nu ngi koy ziar ak njaboot ga yëpp mm, yàlla na yàlla dool dem kon ñu teewul rek euh, Kabir Sène àndandoo ngeen ci 88 628 14 14. karay baat ak lewetal bët di la tuumal jéggal ñu loolu salaamu.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 sukku los gombaanu naa di la baalu yàlla yow mi amal sama inu ulya sukku naa tàllal yaa salaamu jaama ngi jaamu jaama way borooma rëccu naa taylu ma war la los gombaanu naa di la baalu yàlla yow mi amal sama yi dul sukkuna tàllal lay loxo salaamu jaama ngi jaamu jaama ngay way borom yàlla seetlu naa seetantal xam na li ma weesu ñu du yow lépp man la ndax lépp ñaaw na su fasak mbaax jaaraatul woon nga man kon yërëmal jaam bu tuuti bi yaa salaamu yàlla seetlu na settantal xam naa li ma weesu ni du yow lépp man la ndax lépp ñaaw naa su fasak mbaax jaaraatul woon nga la man kon yërëmal jaam bu tuuti yaa salaamu yàlla ku la woo woona buur dëgg ku la ñaan am ëpp nga jaam yaakaar la yow nga di meenal ku la ñaan war na jaam ba ñaan na boroomam nekkuloo kuy tànqam luy woote salaamu. nekkuloo kuy tànqam luy woote salaamu ñu àndoon kii ci 88 628 14 14 dem na xam naa dana dellusiwaat waaye way wii de leen ko déglu bu baax a baax ndax yàlla rek la ñu ci way. Alaaji Kabir Seen moo ko woy ñoo ngi ko enregistré woon fii ndeysaan ak oustaz Mouhamed Lamine Donde na yàlla yeesal yërmandeem. di ci ziyaar mbooleem ñi nga xam ne soppe yonent bi lañu waaye ñi bëgg yàlla ñëpp maa ngi leen ci ziyaar. imam Moussa Gueye moo ko taalif maa ngi koy ziyaar waaw waaw allahu akbar rek kay tax mu baal nu de nguur a ngi lekk ngay borom bu la neexee ni ma siggil rangal may may yaa salaamu yàlla suma may fi yow bay rànge ngay aji ràngal delluwaar rosu jootallaak yama allahu akbar salaamu jaama jaamu jaama ngay way boroomam yàlla ma tooñ yama bu la neexee jéggal yoon wi matadi fii la yam man yow kamaal nga doyadit nanu ko wax loolu rek nanu wax yàlla kamaal nga rek bu ko defee keneen dootu fi am ñu wan ko ni ko lépp yow a bala mu nuy wan ni lépp mën a li garaaw nag mooy mu wan ni lépp mën a yu mel ni coronavirus mi ma ngi wane ni moom lépp mooma sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane waxan nañu ko walillahi junudu samaawaati wal ardi bay salaamu jaama ngay jaamu jaama ngay way boromam bu la neexee tey jii may bon kay bon simlaak saal nga def ma may gën ca gaaña bu la neexee gannaaw ba may nga ma mbaax ya sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu sama doom gën ma fuuf ba gën ma ci jaamu asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw sang bu tedd bi maa ngi lay ziara. waaw kii yëpp sang bu sant Guèye la Alioune Guèye Cambérène mi la daan woo. ndeysaan Alioune noo ngi lay ziara bu baax a baax. ñu ngi leen di ziara waaye ci bis bi. alhamdulilah yal na yàlla dolli yiw. di leen ndokkeel di leen di leen di leen sago di leen sagoo bu baax ndeysaan ndeysaan. da nga def waay. maa ngi sant yàlla bu wér tabaarkàlla. kon kontaan nañ ci yow baax a baax da yal na yàlla kontaan ci yow. amiin yaa rabbal alamin amiin. maa ngi dégg keroog benn waaye bu lay tooñ naan naan la Xuraysin man man man de ba mu waxee Xuraysin ba ba léegi daanaka bis bu ne maa ngi ci de. Xuraysin <laughs> dana dana dana dolli yëf de moom. ah man de maa ngi ci xamaa boo ma ci do boo ma ci dolliwaatoon beneen nag ma jël. <laughs> yàlla baax na xam naa boo wootee ci suuf rek. <laughs> waaw d' accord daañu daañu daañu la ci am lu ñu la ci baaxewaat incha allah. ma maa ngi maa ngi seen numéro sax jël naa ko la woo boo boo paree émission rek naa la woo ñu gën a waxtaan. yàlla ak suturaam yàlla ak suturaam. jërëjëf waay Seck kontaan nañu baax ci yow. waa kay jazakallahu xayran. 88 628 14 14 ku lanu àndee Kabir Sène waaye xaaram xool El Hadj Mor ndax moom pare na. ngir noo ngi dem te dun amaana dig bi jegenam tol nan li bàyyen woon te ñi ñiy wuutu tol nun kon nan di bàyyi xel woon yàlla dogal ba noppinam tol nan li bàyyen wuutu woon te ñi ñiy wuutu tol nun kon nan di bàyyi xel la woon yàlla dogal ba noppi naam nan dal farlu nag te waaj yóbbal buy wute bun ko ku xamul kañ ya du waaj àdduna war ya jege naam nan dal farlu nag te waaj yóbbal buy wute bun ax ku xamul kañ la duwaaj adduna war ya jegenaam bakkan dafay xëy xureet ak lum la fekk ngay mébét moo xam mu jëg mbaati jagul dig bi ak see sottinam bakkan dafay xëy xureet ak lum la fekk ngay mébét moo xam mu jàng baat ti jëggul waay fu dig bi ak te àdduna ngi bëgg jeex bu jeexulit dund gi jeex te nit ñi ñëpp ak nere taax xel yi dal gi ëpp te àdduna ngi bëgg jeex su jeexulit dund gi jeex nit ñi ñëpp a taax seen xel yi dal gi ëpp. seen xel yi dal gi ëpp na ndax ni muy demee nii dee bari lool euh, mbir yi bari lool te yu bari nangu nanguwuñ koo def nanguwunoo wàcc noo suufe nanu wàcc dellu ci yàlla sama borom bokk na ci de. waaw nanu def yi nanu digal yëpp nag waaye nanu nanu wàcc dellu ci yàlla sama borom sama borom moom moo yor yëf yi moo koy doxal. waaw moo ko fi indi moo ko fiy jëlee noonu la demee <laughs> waaw bu ko defee buñ ko defee rek yàlla mën nanoo defal sutura. Euh, soxna Awa Faye noo ngi lay ziar bu groupe sallallahu ala Muhammad waaye di ziare góor a jiite di ziare itam sama sëriñ ba alaaji maaraaje di leen jaal Abdou Aziz bu baax a baax a baax mbay waa seen wëlëre woow nu leen koy jaal bu baax a baax a baax di ko jaal euh, Saint-Louis Mané waaye di ko jaal itam Jibi mbay waaye di ko jaal itam euh, kilifa gu mag yi Youssou Ndour ndax dëgg-dëgg seen mag la woon seen xarit la woon seen lépp la woon metti na waaye day taxaw am am buntu daal ab taal bu te tàkk nu ne lañ koy wale dal di buur rajiimi bajjo jekku nam wutinu ñaaw aminu ñaaw te di ca jëf nag jëf ju ñaaw ba jaas ñu xëy réew ci bàmmeel rak nam boobu bis nay xalaat wutin wu ñaaw amin wu ñaaw asalaamaaleykum waaleykum salaam wa ku baax ki maa ngi lay ziyaara oustaz Ndiaga delo na la ziar bu baax Lamine Gueye Mbacke Bira Gueye. waaw Lamine nang le nong lay ziar bu baax baax. naka wa Kër gi mbaa yaa am tawfiq maa ngi sant de maa ngi sant bu wér de mom oustaz Ndiaga yalla na yàlla dolli gi yalla doli jàmm ci rew mi. yalla takale no lepp luy lore bi jaay na safa sallallahu alaihi wasallam amin ya rabbal alamin amin ya rabbal alamin. oustaz Ndiaga waxal bu baax de waxal bu baax de rew mi de mom fi nekk nii doy na Mhm, ndeysaan ndeysaan waaye waxal bu baax a baax a baax a baax a baax di jaare rek euh, suñu kilifa yi génn àdduna yépp rek mhm, mhm. di leen wax yal na yàlla jéggal leen yàlla bu yàlla topp leen dara yàlla na àjjana di seen wax waaye di jaay nabi Mustafa amiin yaa rabbal aalamiin siyaar waa Makka Biraag gi yépp sama soxna Ayda Fall Coro di siyaar Mati di siyaar sama doomu ndey bu baax a di siar ñep rek di siar suñu mag eh, Malay di hmm. siar kep ku dekk mak Biragi rek hmm. Lamine gey mi ngi lay siar di la ñaanal jamm xewal di wax na ñep ñaan rew mi ne ñep ñaan hmm. siar wa gara su jàmmalaay yëpp suñu president ngam ba ng koy siar bu baax di ko ñaanal jamm ak xewal di ko ñaanal julit yep rek Oustaz Jere jërëjëf yal na yàlla fay la Lamine yal na yàlla sàmm la dolli la xéewal dolli ko jullit yépp yal na ko yàlla boole yal amin bi jaay nabi Moustapha kontaan naa lool de sama xol sedd na deel wax rek jërëjëf jërëjëf gay jërëjëf yal na yàlla dolli la jàmm dolli ko ñëpp rek bi jaay nabi jazakallah wa xayran wa kay lamin gay Maka Bira gay noo ngi koy ñaanal yàlla moom itam yàlla defal ko jàmm waaye di ñaanal itam sama baay alaaji Mbay yah yal na yàlla dolli ko jàmm di ñaanal itam sama góor ga alaaji Mansour Mbay eh, maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax baax maam Dégéen Adja Dégéen Jaañ maa ngi maa ngi koy ñaanal yàlla yàggal ko ci kanamu njaboot gi sunu yaay ju baax jooju Sopaar euh, Sopaar noo ngi ñaanal mbooleem ñi nga xam ne rek tabaarakallaahu euh, ay ay ay njaboot lañ dama lay jox ziar bi nga joxal ma ko vie ak Lamine ak mbooleem ñi nga xam ne rek tabaarakallaahu ci njabootu alaaji Maasul Mbay lañ yàlla na yàlla dolli leen ndam. ndam allahu akbaru yàllaay buur di jëf ko soob baat bi il faut ñu nangu ko bu baax a baax li Mor Kase wax ni allahu akbaru yàllaay buur te mooy jëf ko soob foofu ne li gaa bari bëri ga ak ay ay ay ay lu lu ndaw la sëriñ Cheikh waxoon loolu la loolu la def lu tuuti lu kenn bët dul gis dara mënu koo gis la yabal ci sunu kaw waaw moom sunu borom moo tax mu ni allahu akbaru yàllaay buur te mooy jëf lu ko soob waaw duniyaa ko xool yi mu làmbool jar na xëy ni ko mbas waaw loolu nag wan ginaaw àddina moom yombul ndax gaa yi dugg nañ ci biir gaal gi ba ñëw nga ca digg ba pour ñu tourner waat problème la fi ne ku leen delloo woon boobu njabootu yont yàlla Moussa ga nañu defoon nga xam ne dañuy affaire bi mbas yi mas na fee wàcc booba yàlla ci ay wàcc na fi ba wàccee ay jaan ñuy lekk nit ñi di màtt nit ñi mu wàccee fi ay ay mbott wàccee fi yooyu waaye saa bu ñu waxee rek ñëw ci Moussa ni ko neel yàlla nanu jéggal affaire booba dem ca suba suñu delluwaat ci yëf yi wacce wat benen benen façon dem na ba wacce ay ay deret yuy toru ci aduna bi solal nit ñi yoy yëpp ni nak fi ne ni xamna lool mo fi ne beggu lu affaire bi xawa a wàññiku rek bañu ñu démarré waat loolu nak yalla ngi yalla xamna lepp lépp mi ko fi ne xamna lepp wa da ngay tuup tuup guñu nangu dindi ko ci sa xol mu jaral la bayyi ben affaire bo daan doxal te mu leer la ni li bo jakkalok sa sa borom mu ni la nipp ni la ni la ndax ya daan def li nga ni ko yàlla lii tuubal naa la ko nga teel koo bàyyi tey nga xool ba xam. waa kay dund war na xalaatati di ñëw ak a dem. te xam na am na ci an moom moos ngay faatu. kuy dund war na xalaatati di ñëw ak a dem. te xam na am na ci an moom moos ngay faatu. am le ne fukki weer ak yaar di deeka teru dangete taa feere weer fekk ca ngay faatu am mu de fukki weer ak yaar di deeka teru soxna mi ndaw dégg nga wax boobu uh, at mu ne def fukki weer ak yaar di dee ka teru te di nga ne ca di nga ñi ca taafeere weer taafeer mooy weer wi feeñ nga xool ko daal di ñaan daal di ñaan taafeeru nga mag ñi dañ ko daan def nun nag bàyyi nañ yooyu yëpp nag uh, nga taafeeru ci weer wi fekk na woo ca ngay faatu da ko nattale dañuy at mu ne def fukki weer ak yaar di dee ka teru te yow di nga ña ca taafeere weer fekk ca ngay faatu mu ni te weer wi def ayub bés yooyu faw bës dana ñëw woo xam ni mooy sa sarax mbaa boog ca ngay faatu euh, fi ne am na ñu programme wul seen bopp nag <laughs> waaw nit dafay nit saa yoo xëyee da ngay programmer sa bopp ni yow de doo fanaan boo ko defee dee du la bett waaye fi ne dañuy yanu suuli ji ba ñëw ci biir armeel yi sax fi ñuy suule fi ñuy suule fi ngay gisee kuy téléphone am sonné du du ko da gaaw coupé de ngir tiit déedéet day décroché allo wàcce leen bagage yi maa ngi ñëw <laughs> ndax di nga yegg yow ki rey kii tëral tëral ma ngi tëdd ki ki ki ko soreegul te ragalu la te it ayo ay gu tol ni du la ci boole yow nga bañ a boole sa bopp ci ñiy dee yooyu mat nay xalaat pap jama maa ngi lay ziar di ziar ay ay da xulle ci Mbuur eh, suma xarit yaayu colonel nu ngi koy nuyu di ko ziar bu baax a baax aja Coro Sarr ak waa Mbuur yépp jeex ga bett farlul ci ibaadaatu yaram ngay afalay kontak bi raay ak diw suub rek ko kuy mujj ak saxi ginnaaw faatu yaram wi ngay yafalay xontak diraay ak diw suub rek ko kuy mujj ak saxi ginnaaw faatu ma dellu jóg yee ñi ngémboo fii du tuusuti moo xam ni ba mu lukki koo booba ba tey kenn jaaroogu fi xam naa maître Xaasim moom maa ngi koy jaale waa tribunal sama xarit xarit dafa amoon groupe avocat yoo xam ni dem nañ ba yor seen cabinet di doxal Xaasim da leen di jàngal moo tax yàlla ni <laughs> yàlla ay ngan <laughs> moo doonoon ponkal bi nga xam ne moo nekkoon lu waay jaaxle moo la koy jàngal gis nga am na benn avocat ndeysaan gaañu na léegi juge boobu bu ñu daan wax Mbaye Jacques Mbaye Jacques boobu ndeysaan euh, maître Baro maître moom itam Maître Baro moom itam euh, nu ko koy jaal Maître Baro bu cabinet euh, Aïssata Tall Sall nu ko koy jaal bu baax a baax a baax a baax di ko jaal itam euh, kële nu mu tuddati waay imam Ndaari Diop imam Ndaari nu ngi ko koy jaal di ko jaal itam waa tribunal yëpp dembale juge dembale président dembale ñoo ngi la koy jaal ñoo ñëpp moom a boole woon ak moom salaam wa Oustaz Ndiaga man la Ami Ndaw waaw soxna mi <laughs> maa ngi lay ziar <laughs> ndeysaan ndeysaan ndeysaan ah kontaan am Oustaz damaa woo ma ne xaaral ma wuy ji ko gaaw ah, ndeysaan waaw waaw moom de te damaa bëgg nit ñi fàttaliku rek lii xew maa ngi maa ngi rafetlu sa émission bi am na solo ah ndeysaan ah, gis nga Oustaz foofu nga daanele mm-hmm. euh, suñ sàmbay radiyallahu taala anhu mm-hmm. daan am na waxtaanam bu muy wax ni waaw ab jullit du bëri mébét mm-hmm. ab jullit du bëri naar ndax dalum xel mënta weesu ngay mébét loo xam ne xamoo tax di nga ko fekkee wala dëgg la de ci li ngay wax nag muy tuub gi ah. léegi oustaz xamoo lu ñu xewal xam nga Dakar couvre-feu moo ci am waaw léegi Gàmbi la ñuy dem Gàmbi gan Gàmbi fa lañ xewal fa la ñuy bàmbulaay yi info information boobu rek laa la doon baaxee pour wax la ne nit ñi di bopp. maanaam euh, di di li ñu tere fi Sénégal ñu dem defe jiko ko waaw kay. waaw baax na waaw baax na kon nag ñaax leen ñu tuub dellu ci yàlla. te ah, xam ni àdduna jeex na comme ñoom ñoo ngi dem Gambie kay gisuñu li yàlla def. <laughs> doy na waar <laughs> Ami Ndaw jërëjëf kontaan naa euh, loolu da ciy baax. Euh, xam naa ni nit ñi daal nit ñi daal ak noonu nit daal lanu malaaka ya doon wax naan nit du soppeeku nit du changé. Euh, moom moom moom ni yàlla ñooñu tuur ah, tuur deret ak def lu bon rek la ñuy nekkee àdduna def naa fi mu ne ku xool ni mu demee nii euh, tiitaange war na am de tiitaange war na am ndax yàlla dóor na te xàccaat na te balaa bàyyi daa dal euh, moo tax it tabaarka la fi ne nii nit daa bëgg boppam bëgg boppam ba du programme boppam ci dee déggoo nit ñi bu ñuy ñaan bu ñu déggee ko dee dañ mbas mi dañ naan yàlla naa bokk ci ñu koy nettali léegi yow doo yow yaa nga programme sama moroomum nit te bi moo waxoon ne bala ngaa mat sëkk ab julit way gëm li nga yéene sa bopp da nga koy yéene sa morom da ni yow koy neel yàlla na nu ci yàlla musal nun ñëpp rek waaye daal koy sédd jox gaayee toog yow daal ni yàlla na yàlla nan bokk ca ñoo koy nittali la ilaha illallah nit moo tax daal doy na waa xel faw ak di ay waram jege na dee ca bàyyi sa xel faw di moy bul jàpp bul bàyyi bul diisal te bul woyafal bul bëgg ba mu bul xëyit dëddu bul xëyit dëddu ko asalaamaaleykum maaleykum salaam wa ku baax ki maa ngi lay ziar yal yàlla nangu ziar waaw kooku ndey siga waaw ndey siga waaw bismillah ça va dama bëggoon ci teraanga Sénégal yi. teraanga yi day wax dëgg yàlla lu dul ñaan daal fi mu ne joxewuñ ko fii noonu. Ah. waaw waaw. ah waaw kon ñaan leen. waaw moo gën de <laughs> amu xaalis amu xaalis te moo jàmm de ndey dara jëru ko ci àddina. amin amin ma ni amu xaalis te moo jàmm. ah waaw loolu de jaru ko moom. waaw dara jaru ko ci àddina yàlla na yàlla woyofal. allah waaw kay dee leen seetlu émission yi dee leen ko bàyyi xel te bu leen bàyyi nit di wax rek fi mu ne dinga nga mos a dégg ab journal nit dugg ci di laaj ci xéwal bi <laughs> Babacar Fall di def journal wala Assane Gueye wala Papa di def journal nit dugg ci biir journal bi di laaj xéwal yi fi mu ne gis nga xéwal yi nee naa leen ma ngi yàq émission yi même ñiy def ñiy def ñiy def émission yi xéwal yi ñoo ngi yàq seen i émission kenn déglootu leen xéwal yi rek la ñuy laaj xaw ma ñoo ngi ciy bàyyi xel xaw ma

yal na yàlla dolli ndam xam naa waxtu waa nga may dëngal tey moom dafa mel ni rek ma ngi noonu eh, Yacine nga ma <laughs> tey moom da ngaa xaalu déedéet du xaal Yacine àddina eh, bi nit ñi dégg nga soxna Ami Ndaw li mu wax ñoom xam nga dañuy dugg ci moom mooy def émission jooy xool léegi xam ni mu ni muy doxi xam nit ñi nan la ñuy kile nit ñi dem ba di dem di dem Gàmbi ngir fom yi ñu leen tere Gàmbi yàlla mi ne fii moo ne Gàmbi yàlla mi ne Sénégal moo ne Gàmbi bon nañu bàyyi caaxaan nañu bàyyi fa nanu tuub nanu dellu ci yàlla euh, soxna Fatima Jonn euh, noo ngi lay ñaanal yàlla bu baax di la ziar bu baax a baax di la nuyu yow itam ak mbooleem ñi nga xam ne dégg ñoo ngi dugg ci émission yi rek fu ñu mën a ne sunu xel a ngi ci yéen di euh, amadi amadi Ndiaye defe naa ni waxtu wa léegi mu dëgmal sama xarit ba ma noonu doomi Abdou Karim Badja

Mhm. ci way baax yi way baax yi rek laay jooyal sama sama yërmande wallaahi waaw léeg-léeg xam nga nit ñi dañoo defee ne nag yërmande ji moom day këpp ci adduna bi mm. rek daj ñëpp mm, mm, ñi ko gën a jege rek lay jàll de ko gën a jege da ngay fexe ba jege ko ko wax nag inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin waaw waaw gars yi nag dañuy fexe ba di ko sori ah te bëgg yërmandeem nañ ko faral di jege nag <laughs> yàlla moom nañ def lu ne pour di ko jege rek tabarakallah daal ñu ñëwaat ci loolu nan la ñuy def ba jege yàlla incha allah waaw waxtaan bu am solo nag macha allah shukran